Chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la CTV dans votre émission Avocat, l'émission qui traite les questions juridiques, les cas, mais aussi l'actualité de manière générale tey nag ñu un peu si li nga xam ne moom mooy l'actualité maanaam alternance bi nga xam ne am na ci ci vraiment la jeunesse du pays jàpp nañ ci bu baax a baax baax mun nañ jàpp ne vraiment la jeunesse sont le grand artisan ci li nga xam ne moom moo fi jota jota xew c'est-à-dire seen loxo jàpp na ci bu baax a baax a baax ñoo amaat espoir xam ne moom mooy ci réew mi amaat espoir ci xam ne mooy le président en ñu nekk li nga xam ne mooy la priorité parce que vraiment on se vend de renouveau la jeunesse war nañ ci mën a gis seen bopp a baax a bi nga xam ne moom la ñuy dund moo tax tey ñu bëgg waxtaanee ci benn benn question maanaam quelle politique adopter vraiment ci chômage bi nga xam ne moom la jeunesse di di dund ñu nekk ci ak ki nga xam ne moom mooy Bachir ñoo nekk le président du CNE conseil national de l'entrepreneuriat Bachir c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. asalaamaaleykum bonjour monsieur Tall. Euh, maa ngi nuyu di la sant ci koor gi. Mm-hmm. di nuyu tamit euh, suñu mbokku téléspectateurs yi. na ñu yàlla yóbbu ci kooru jàmm ci jàmm lépp lu ñu ñaan ci koor gi yàlla nangul ko. Mm-hmm. nangul ko tamit euh, si njiite réew mi. Mhm. bi nga xam ne toog na démb ak gouvernement bi euh, te lépp mission bi muy tàmbalee yàlla na ko yàlla mottali li mu yéene yàlla ko yàlla mottali parce que réew si président. réussite dëkk bi yëpp. donc je pense que foofu la ñuy campé un peu le décor ñu waat un sur actualité balaa ñoo dugg vraiment ci thématique mi lan ban ressentiment nga am ci li nga xam ne mooy alternance bi nga xam moo fi am si une alternance boo xam ne apaisée vraiment avant loolu ñi ñu xawoon nañ tout trop donc les investisseurs parce que je pense que yaa ngi ci conseil national de l'entrepreneuriat donc il les investisseurs vous donc ban sentiment ngay am ci vraiment alternance bi nga xam moo xew ci réew mi. en fait dinaa joxe deux façons analyse. Mhm. première analyse mooy analyse en tant que citoyen. ak beneen analyse bi nga xamante naa ko def en tant que chef d'entreprise. analyse mooy def en tant que citoyen mooy renouvellement bi am c'est-à-dire génération bu bees bu ñu gis président am nañ président boo xamante ne gàcce a am na 44 ans. Sénégal soo nekkee dans le monde des affaires dana naan tant que amoo cinquante cinq ans t'es pas considéré comme ku expérience. Mm-hmm. d'ailleurs dégg nga début bi sax bi ñu waxee âge am ñu ni ah est-ce que dina mën a gérer compétence amul âge ñun sénégalais yi ñi nekk à man liggéey naa fa industrie yu bëri ingénieurs yu bëri c'est des jeunes sénégalais yu am vingt cinq vingt six vingt sept ans. ñuy apporter ay innovation bëri si dëkk européen yu bëri léegi pourquoi pas suñu président tey su amee bu ëllëg sax sa amoon 35 ans 36 ans comme le dit la constitution mu am compétence parce que man dama gëm ni nit mënul am parcours ba nekk président ci nen te amuloo wane amuloo wane sa parti amuloo wane comme ambition amuloo wane comme intégrité moo tax euh, li li xew keroog neex nañu ci renouvellement de mooy engagement bi jeunesse am c'est-à-dire la volonté de changer nous en tant que sénégalais c'est-à-dire kenn gis ngeen ko ci euh, mooy affaire u set setal yi am. Mm-hmm. c'est spontané nit ñi def nañ ko spontanéité moom nag nañuy yaakaar nag ñu répété ko ci lu bëri si notre comportement dans la vie civile ñu ñu comporté woo ak suñu dëkkandoo yi changement yooyu la ñuy ak mais aujourd'hui engouement boobu kontaan nañ si deuxième aspect mooy en tant que chef d'entreprise mm-hmm. investisseurs yi balaa ñuy dugg si benn dëkk dañuy xool lu ñu naan le risque pays est-ce que dëkk bi suñ fi dugalee suñu xaalis dinañ si investir ba am suñu rentabilité Sénégal lii xew nii nii nii dafa gën a neexal suñu risque pays. dafay créer deux engouements dina indi engouement nga xamante ni investisseurs étrangers dinañ ni ah dëkk bi institutions yi sont solides. Mmh, am lu mu yëngu yëngu yëngu le conseil constitutionnel a été là. le pays a eu changement malgré tension yi amoon gis nañ passation bi am entre le président Macky Sall et le président Diomaye Faye ànd na si teggin ñu gis garde républicain loolu dafa sa donné un baume au cœur. Mm-hmm. deuxième aspect bi may wax mooy peut-être analyse la wala prévision prévision lay xaw a joxe nii. Mm-hmm. dina créer benn ñuy wax un boom dans la consommation intérieure xol yi dañuy féex nit ñi dañuy nangu dépenser da nga gis différence bi am entre korité bii nii ak korité daaw. da nga gis mm-hmm. différence au niveau des dépenses au niveau du comportement des gens au niveau des événements parce que xol yi day gën a féex day benn benn. benn envie boo xamante ni ñu bëgg changement parce que am na benn point bu bu mu mën apporter tey léegi nii année bi nii 2024 dina am 75 pays yoo xamante ni élection présidentielle dafay am soit élection présidentielle soit on élit un premier ministre. Mm-hmm. il y aura à peu près 2 milliards de personnes yi nga xamante on va les appeler li xew Sénégal ma jaaxal su amee 5 pays yu mu am. c'est-à-dire transition démographique sans coow kenn kenn kenn kenn kaasul dañ maa sàcc loolu c'est exceptionnel te loolu il faut nit ñi di ko xam que Sénégal yi ñu am chance boobu kenn dëkk yu bëri amuñu ko. dëkk yu bëri amuñu ko voilà ba pare deuxième chose bi nga xamante ne président Diomaye Faye ak euh, monsieur Ousmane Sonko comme comme dañu naan Diomaye Sonko mm-hmm. mooy li nga xamante ne le le vote d'adhésion. c'est-à-dire ñii dañuy voter pour espoir dëkk yu bëri léegi dañuy voter juste pour voter. dañoo jaay espoir te loolu dafa garaaw nga xam ne mën nga bi. si nga xam ne mooy transition bi un mm-hmm. nga xam ne dafa voté massivement nga xam ne mooy le projet Diomaye Sonko vraiment ñu gëm bu baax a baax nga xam ne moom mooy projet bi. Mm-hmm. am ci espoir mais dafa am benn problème boo xam ne dañ ko gis au Sénégal on parle d'une population de plus de mm-hmm. donc composée de jeunes bu ñu jëlee en âge de travail on est à 35 pour vraiment la ñuy parce que je pense emploi mais aussi insertion mais boo xoolee la masse des jeunes mm -hmm. donc euh, emploi bi dina nekk trop vous en tant qu'entrepreneur mhm. donc je pense que ni auto emploi bi ça va être vraiment solution pour l'insertion de la jeunesse en fait emploi su ñu koy traité il faut nag je pense que euh, gouvernement bés mu koy anticiper en la patience il faut mu patience il faut tamit programme boo xam ne dañu am visibilité sur l'emploi Euh, parce que on a cent quarante cinq mille voire cent quarante sept mille jeunes qui rentrent sur le marché du travail chaque année. léegi li ñu mën a def mooy def ko en trois étapes idée la xalaat la. xel doyul mais dañuy def première étape boo xamante ni dans l'urgence te si le gouvernement démarre demain son acti euh, le ses ses activité ak tout ak toutes les ak tous les ministres. Mhm. il faut ñu soulager tey ñi. am càq-càq ñi comment c'est quoi la solution pour pour am transition il faut ñu am benn politique de moyen long terme. Mhm. court terme mooy embauche bi xam ne état da koy def mooy tey politique de pavage yi ñu am politique de construction route yi ñu am maa ngis keroog si construction euh, route Dakar euh, Dakar Saint-Louis bi gis naa ko en train de mener des des il faut am actuellement pour ñu soulager état augmenter embauche yi muy def bien que c'est pas le rôle de l'état de créer euh, de l'emploi mais au moins mu soulager deuxième phase bi moo li ñu wax l'employabilité du bugguma dingaat kenn mais tey soo génnee master philosophie université. Mm-hmm. on may recruter. Mm-hmm. dina compliqué pour nga am métier en philosophie. formation métier des jeunes bi aussi am loo ko s'appelle l'employabilité. Mm-hmm. ni ñu koy defee mooy ci trois étapes transition lay nekk. cest à tey élèves yu bëri su ñu amee bac dañ leen orienté si ay filières scientifiques ñu nekk ay techniciens supérieurs. nekk ay ingénieur nañu yóbbu daal si ay filière scientifique nga xamante ni technique technique nga xamante ni loolu dina mhm. ko defee suñu période de je donne exemple de cinq ans c'est-à-dire cent quarante sept millions yuy dugg ñu am si nu mu néew néew ñu am si cinquante mille techniciens supérieurs wala ingénieurs mhm. nga xamante ni investisseur bi nañ ni ah chaque année Sénégal mën nañ la fournir cinquante mille ingénieurs wala cinquante mille techniciens ñu xam ne ah Sénégal c'est une base de formation supérieure. Mmh. muy benn deuxième chose ñu ni am nañ pétrole am nañ gaz. Mmh. donc léegi usines yi su ñuy consommer électricité foo waree faye cent état mën na subventionné soo fayee cent ngay fay cinquante. Mmh. muy la compétitivité de nos industries. troisième palier état bi ne ah lépp lu ñu doon importer léegi nag yoo xamante mën nañ ko defar sur place nañ ko defar sur place parce que am nañu ay usine am nañu ay techniciens supérieurs yoo xamante mën nañ liggéey si usines yi wala ingénieurs yi wala emploi technique yi am nga xamante dañuy compétitif quatrième point bi nag si ni ñuy indi investisseur bu ñoo dugal loxoom ci loolu parce que industrie rek moo mën a absorber chômage chômage des jeunes là mais il faut ñu am base boo xamante ne jeunes yi dugg il faut ñu am fu ñu dugal mais tey su jëlee say 147 000 yoo xamante ni amuñu employabilité c'est-à-dire dëkk bi soxla du profil yooyu leen soxla il faut moom adéquation te adéquation boobu ni ñu ko mën a mooy industrie développer industrie bi développer ay profils yoo xamante ni am nañ ko pour dugal ko ci biir usines yi. Mmh. pourtant am nañu ay petites et moyennes yu bëri bëri bëri c'est-à-dire balaa ñoo dem ci li nga xam ne mooy industrialisation parce que je mmh. pense que industrialisation dafay nekk benn processus te yaa ngi koy wax il faudra mmh. donc ñu dégager vraiment des objectifs dans le court dans le moyen et dans long terme. est-ce que aussi ces PME là vraiment mënuñu nekk benn début boo xam ne dafay dem vers l'industrialisation c'est-à-dire ñu accompagner leen de telle sorte mooy l'industrialisation pour vraiment masse parce que yaa ngi koy wax bu ñu amee bu ñu bu ñu formé cinquante mille ingénieurs après. Mhm. est-ce que est-ce que dinañ mën a xaar donc industrialisation pour doog leen a mën a insérer y a les PME qui sont déjà là. loolu sax li nga wax ni question bi ñu posé mooy lu tax ñu créer conseil national de l'entrepreneuriat. Mhm. Sénégal depuis dix ans am na loo xamante ni. on n'a jamais eu li may wax rek on n'a jamais eu autant d'entrepreneurs au Sénégal ñëppay lancé wu créer soit nga créer sa société di jaay ay yére Instagram. Hmm. wala nga ubbi sa showroom wala ngay importer di jaay y a eu jamais de temps d'entrepreneur au Sénégal c'est un signe boo xamante ni c'est très important c'est que jeunesse am nañu espoir seen dëkk parce que kuy lancer dans l'entrepreneuriat c'est que am nga yaakaar dëkk bi mu ngi avancer. loolu hmm. loolu loolu benn la ñun dañoo identifier groupe de chefs d'entreprise. ñu ni yaa y' a des gens qui sont lancés depuis trois ans quatre ans cinq ans ils sont dans le monde des affaires mais amuñu accompagnement comme li nga wax ni kii importé par exemple damay lay jox exemple kii importé ay couches di ko jaay bébé yi mu ni suba damay arrêté importation couche je vais fabriquer mes couches ñun séena foofu lay positionné wu dañuy ñëw accompagner ki jógee A dem B ñu jëm laa yóbbu Z da nga doon importé est-ce que am nga politique d'industrialisation ñu ne waaw ñu ñu accompagner la mhm. dafa la structuration li ñuy wax structuration fekkee da ngay informel lay formaliser nga am NINEA nga am compte di déclarer impôt moo tax si dans notre rencontre dañuy rencontrer priorité bi nii si weer yi ñëw dañuy rencontrer direction générale des impôts mhm. rencontrer direction générale des douanes mooy les deux régies financières de l'État mhm. parce que il faut ñu xam ñu nee naa ni entreprise tey su réclamer ah am nga projet industrie ah il faut ñu defal le business plan accompagner la. Mm-hmm. am nañ ay partenaires financiers yu fi nekk te yoo xamante ni fi ak ay fan dinañ annoncé montant yi ñuy accompagner du ñu ñooy banque mais ni ñuy préparer dossier yi dem defaan ko ci banque ni ah on a telle entreprise day importer couche léegi usine bi couche bi la koy defee financement bi lii la ñu accompagner la après def sa suivi. donc ci accompagnement bi. ci accompagnement parce que loolu moo fi loolu moo fi manqué tey c'est-à-dire mm-hmm. une partie pragmatique boo xamante tey état teg na agence yoo xamante ñu ngi koy def xam naa si revenir un peu plus tard yoo xam ne dañuy accompagner mm-hmm. mais tey c'est la première fois que ay privé dajaloo mm-hmm. di def accompagnement parce que idée bi bu la dara ndax man exigence bi muy laaj aujourd'hui au niveau euh, tey de nos entreprises avant même ñu naan état ah suba premier ministre monsieur Ousmane Sonko vous avez proposé quoi aux entreprises sénégalaises dañuy xool ñu tàggat suñu bopp ba pare ñun. lan lañ mën defal suñu bopp. parce que seen damay wax lu tax ñu dajul dañuy xool ñun ensemble danañu mën a def suñu bopp ba pare lu ñu mën a suñu bopp mooy. être professionnel. d'abord être performant. ba pare li ñuy wax en anglais liable c'est-à-dire mën a délivrer c'est-à-dire état su la joxee liggéey nga delloo ko liggéey bi mu la jox. boucler ko ba nga xamante ni ah duñ ne ah Sénégal yi kenn du leen jox. liggéeyu état loolu il faut ñu dindi ko suñu ba pare exigence ba pare. Mm-hmm. deux ñu solidaire. c'est-à-dire comme li nga wax ni tey am na loo loo loo sum sax tey man dama naan entreprise yu nekk dans le bâtiment yi nekk au niveau du CNE. dans le mm-hmm. état déroul mu ngi déroul joxe leen seen programme ni ñu koy waaj a dem leen positionné fi nga xamante ni dañoo soxla infrastructure mais au lieu ngeen nekk benn benn entreprise def leen consortium. Mm-hmm. soo leen nekkee vingt entreprises sénégalaises yu dajaloo ne état. nous sommes vingt entreprises euh, on veut faire tel projet avec vous mais état dina sawar liggéey ak yéen donc éparpillement bi nga xam ne les entreprises dañ koy éparpiller wu je mhm. pense que tamit problème la ci li nga wax c'est-à-dire bu ñu booloo woon je pense que moom mooy moom mooy doole te dinañ mën a def de grandes choses ensemble aussi effectivement parce que Sénégal bu tey 2024 bokk la Sénégal 1998. Mhm. te enjeux financiers yi état bi di engagé au niveau des infrastructures. Mhm. que ce soit la santé que ce soit les routes que ce soit les hôpitaux. état tey day soxla partenaire boo xamante ne day day fiable dina ko mën a délivrer mm-hmm. exemple tey état su ñëwoon ne am naa benn marché cent milliards dama soxla benn entreprise entreprise sénégalaise yi mën a génne cent milliards de de de de de de liquidité wala de de comment de critères d'éligibilité pour exécuter benn contrat bëriwuñu mm-hmm. mais tey soo leen ne kon vingt trente entreprises sénégalaises ngeen dajalee consortium ne état ah mën nañ tabax benn tali je donne un exemple Dakar Saint-Louis mënoon nañu ko def mais on est cinquante entreprises sénégalais mais état da si sawar. ba pare xam na lay indil derrière ce qu'on appelle la répercussion impact social dans le pays. benn entreprise su amee marché cent milliards impact am dina am ay emploi mais du du tas si dëkk bi. mais te soo amee cent entreprises yu liggéey ci benn projet bu cent milliards. mais day tas si dëkk bi. parce que gis ku nekk koo xamante ne entreprise ah am na si 100 millions kii am na si 50 millions kii am na si 75 millions. bi il ñu koy respecter. te dina mën a wàcc ba sur la jeunesse parce que je pense que tamit c'est l'objet de débat aussi. exactement non dina wàcc jeunesse bi parce que. Mm-hmm. lu ñu leen mën wax dañ doon wax na jeunesse bi liggéeyu ñu dañoo bëgg bëgg lu yomb ya cari caricature la. Mm-hmm. parce que malheureusement woo médias yi yenn du ñëpp. on montre pas cette face cachée de la jeunesse nga xamante ni ñuy sawar tey soo demee si embouteillage yi diggante VDN ba foire ba. nga jël si corniche bi 18 heures jeunes yi fa ñuy nekk di jaay gerte di jaay mouchoir ils sont là-bas de 5 heures du matin à 18 heures. ñeme nañ ko bu baax a baax. comme lu ñuy wax euh, benn expression tubaab bu mu naan ils n'ont aucune chance mais ils la saisissent ñoom noonu la ñuy dundee. amuñu aucune chance mais ils la saisissent. ñun nag foofu nañu war a mën a xetale parce que man sama engagement man personnellement man maay wax mhm. Mohamed El Bachir ñoo ko moom di pour man chef d'entreprise au Sénégal il faut ñu joxaan leen il faut que l'État le rappelle le rôle social mhm. chef d'entreprise ak noo mënti toll soo fekkee naa embauché nga benn nit sax mhm. rôle social nga am dañoo toll si dëkk foo xamante ni nga nekk chef d'entreprise réussir yor quatrième cinquième sixième voiture amoo impact social amul sens ñoo nekk si dëkk boo xamante ni su la jàll yàlla joxee wërsëg daf la jox loo xamante ni benn bi di ko yóbbu sa kër tudd say doom investir benn pàcc bi war nga si séddale nit ñi c'est-à-dire bi mooy investissement bi ñuy wax ak loolu beneen bi da koy nanguwaat parce que da laa dénk man loolu mooy sama philosophie en tant que chef d'entreprise parce que man dama am benn modèle de référence dama koy wax fépp mhm. mooy le vieux Aliou Sow yàlla na yàlla na su sedd ci kawam c'est-à-dire il réussi sa vie moi j'ai j'ai pas dit il a pas réussi dans la vie il a réussi sa vie c'est-à-dire li mu bëggoon mëne na ko il a impacté le pays au niveau des infrastructures il a impacté le pays en matière sociale de ses employés jàppale na ba c'était Aliou mooy fa ay kër yu bëri ba mu làqoo lu ñu wax kii rek a wàcc liggéey loolu mooy modèle ci dëkk c'est-à-dire lépp lu tegu sa loxo. Mhm. ne si nit ñi gis seen bopp parce que milliard bu amul njëriñ yàlla na ci yàlla musal yàlla je pense que sànq yaa un peu accompagnement je pense que accompagnement bi am trop trop parce que gisoon nañ fi aussi l'état du Sénégal avant régime bi nga xam ne moo fi nekkoon donc régime bi nga xam en place il a beaucoup financé li nga xam ne mooy la mooy la jeunesse par l'entremise de la DER ANPEJ et cetera mais dañoo gis ne vraiment si financement là donc impact bi mu bi am mm-hmm. est le gouvernement qui est en place là est-ce que war na dégg na leen maanaam sax ñoom ils pensent que c'est pas la même chose donc il faudra rationaliser un peu accompagner mais est-ce que financement à tout bord boobu noonu est-ce que loolu ça va ça va li nga xam ne mooy l'auto-emploi parce que financer sans formation aussi ça va pas passer aussi état état bu nekk on apprend étape par étape c'est-à-dire euh, Wade euh, depuis Senghor man je suis le type de citoyen qui, qui, la République et l'héritage de la République mm-hmm. on va le depuis les pères fondateurs de la nation sénégalaise pour pour ñëw si affaire ñoom deer daam ñu si li suñu maam liggéey Seydi Hadji Malick maam Borom Touba Laayeen ñi ainsi de suite. dañ fi liggéey loo xamante ni dañ fi liggéey loo xamante ni on va dire si suuf si la nekk mu am sengoor ñëw mm-hmm. mais ah Sénégal ngi nii nañu booloo liggéey ñu avancé. ñu accepté yëpp ne ñun on est des sénégalais loolu la ñuy wax nation. on est l'une des rares nations en Afrique il y a beaucoup de pays en Afrique c'est des pays. Mm-hmm. nation loolu Senghor daf ko daf ko réussir et on se rend pas compte de ce nation bi créé na ko léegi dañu war a avancer abdu Diouf ñëw. ne mm-hmm. comme dañoo avancer nañu dugg ci benn oto. abdu Diouf tabax oto bi defar oto bi def lépp ba ñëpp dugg si. Mm-hmm. oto boobu noonu mooy l'État. Abdou Diouf a créé l'état du Sénégal il a créé une administration nga xamante ni ñëpp réer ñu ko jalousé mhm. c'est-à-dire Sénégal tey président su amul le pays fonctionne premier ministre su amul le pays fonctionne parce que l'appareil d'état est là dem gis nañ ko donc ma la gis nañ alternance bi nga xam ne moom lañ fi dem lañ gisee protocole bi dem xam nañ l'état l'état du Sénégal est là et présent c'est mhm. ne yoon bi ñuy jël xam naa ko émergence lañ jëm dañuy xàlli yoon yi mhm. mu xàlli Macky Sall ba mu ñëwee nag ne infrastructure nañu soxla mu def infrastructure bi teg autoroute oto boobu nag Abdou Diouf créé. Mhm. Abdoulaye Wade xàll yoon Macky ñëw dër ko. Mhm. léegi nag le président Diomaye Faye. Mhm. dans son programme ba mu ñëwee nii ah oto bi xat na dañ ko def bus. ñëpp a xaj si ñëpp gis seen bopp. ñu tegu sur l'ordre de l'émergence nag autoroute ak péage boobu nag di président Diomaye Faye di dawal nag mhm. dafa am ay station de service yu si nekk nga xam ne fan la ñuy toog ñun chef d'entreprise yi mhm. ñooy joxe lekk mhm. ñooy dugal oto bi essence ñooy tax émergence boobu am mooy station service chef d'entreprise yooyu ñun rôle boobu la ñuy joué da jàpp ne privé bi actuellement dafa am benn rôle boobu primordial ci li nga xam ne ci lañu ci la ñu jëm jamono ji la politique économique luy emploi luy compétitivité c'est de la responsabilité du secteur privé mhm. te état moo ko war a obligé au niveau du secteur privé avec du donnant donnant ñu secteur privé am na ñu ñu fi jiitu ñu ñu topp seen ginnaaw am mhm. na ñu ëpp légitimité ñoo ñu ëpp expérience ñuy UNACOIS di CNP di la CNES di le MEDES ñoom ñoo ñu jiitu di le club des investisseurs dirigé par euh, Pierre Goudiaby Atepa mhm. ñoom ñoo ñu jiitu ñoom am na xam ne ñu ngi koy négocier en matière de ak syndicat ak salaire yi mm-hmm. ñun dañuy apporter ñun petite pièce à l'édifice en toute humilité mm-hmm. ñun ah ñun fii nañu mënee mooy la nouvelle génération xam ne am na méthodologie de travail mm-hmm. on connaît la réalité de notre génération ñun état mën na jàpp suñu mën na jàpp suñu mbagg ñu jàppale ko ñu avancer à ce ñu avancer par rapport à l'emploi mais le secteur mhm. moo war a gàddu responsabilité des emplois état jox ko ay moyens nécessaires mhm. ba pare exiger ay résultats état su ñuy joxee ay milliards secteur privé ne jàppaleen ci émergence ñu avancé il faut que tamit ñun ñu jël suñu engagement am matière de d'emploi di chiffrer ko joxe ko en matière d'impact social yore entreprise te amoo impact social amul sens tamit parce que faut dëkk mhm. c'est bon je pense que ni yëngee fi ngay wax am am na am na solo un peu mais damay ñëwaat un peu sur l'environnement des affaires au, mhm. Sénégal. Mhm. parce que c'est vrai que a investir que est que vraiment l'environnement est est est bon parce que boo xoolee tey jii les petites et moyennes entreprises. pour ñu décoller. vraiment c'est tout à fait problématique alors que dans un pays comme le Sénégal je pense que les petites et entreprises tey jii bu ñu dimbali au moins dinañu mën a grandir mais c'est tout à fait compliqué pour ñu mën a pour ñu mën a émerger te je pense que loolu tamit dafay impacter ci li nga xam ne mooy la jeunesse parce que si ces petites entreprises arrivent à émerger dinañ mën a aussi jël la jeunesse am na maa ngi jégalu am na benn point mhm. mhm, mhm. euh, am na D am na DER. beneen côté bi am na ADPME am na 3FPT TP am na BMN. bureau de mise à niveau. am na e. tamit BND e, am na ñoom FONSIS tamit. ma li ma xalaat moom mën nañu ko rationaliser mais pas en un seul bloc. mën na ko def en trois blocs. premier bloc bi dafay dugal BNDE dugal fa FONGIP dugal fa DER. loolu mooy banque bi gérer nga xam ne ñoom investissement rek nañuy gérer. tout simplement. nga def nga regrouper ADPME 3FPT BMN eux ils vont faire que l' technique ñoom dañu nekk fii pour conseil nga regrouper en un pour pôle mooy pôle technique bi. Mhm. ñoom accompagnement technique la ñuy def. troisième point bi mooy ñoom FONSIS nga xamante ñoom dañuy récupérer fonds pour investir muy FONSIS mun nga récupérer CDC. mun mhm. nga récupérer FONSIS ba nga xam ne nekk la la puissance financière de l' État. boobu boobaa dañuy exister état nekk état entrepreneur état mën na gis benn pépite. maa ngi jox benn exemple daay xam nga jaay nañu pâtisserie. Sénégal moom mënut ko nekk jaay Maroc. su ñu am benn puissance état boo xamante ni état mën na jëndee action récupérer pâtisserie comme kay enjeu alimentaire la état mënoon fa dugal loxoom ne on rachète pâtisserie ou on confie à des privés sénégalais jox leen xaalis ñu liggéey. donc nga trois pôles yi. nga xam ne pôle de financement bancaire. technique pôle technique. ak pôle d'investissement nga xamante ni FONSIS ak CDC dañuy récupérer même une partie des revenus du pétrole pour l'avenir de nos enfants et de nos petits enfants. et de nos petits enfants ñu ñëwaat un peu e e yi dañuy bëgg yenn saa yi am financement. Mhm. mais la réalité c'est qu'ils sont pas formalisés. Mhm. da gis ko xam ne liggéey am je donne un exemple benn jeune boo xamante l'a reçu la dernière fois ici da doon da ay chaises à cinquante francs. pendant trois ans. Aujourd'hui, il importe pas moins d'un conteneur de 40 pays pour faire des grands événements. daañu fa dafa ñëw fii mais dafa soxla ñu formaliser ko. bis ñu la formaliser structurer nga am relevé bancaire am comptable topp su dossier bancaire day yomb. mais tey soo mënul amoo formalité kenn xamul la à minima t'es pas formalisé mënoo dem banque bu banque jox la kayit bi parce que il faut banque xam la yaay kan lan nga liggéey ñu nekk suñu rôle conseil national d'entrepreneuriat loolu la cest à des champions. sur au niveau local maintenant l'environnement des affaires mhm. moo li ma doon wax sànq le fait d'avoir eu une transition saine heureuse au Sénégal va faciliter l'intégration d'investisseurs étrangers parce que investisseurs étrangers moom c'est obligatoire et c'est important parce que day va il amène de l'argent frais comme ni tubaab bi di wax mhm. et aussi dans l'environnement des affaires au Sénégal comme ni ñuy wax changement dina parce que avant da ngay ñafe di liggéey gis nit koo xamante ne amul historique kenn xamul fu mu jugee ñëw sa secteur yàq ko mooy comme ni ñuy wax rek expression bu bees bii génn toog muy dox. toog muy dox toog muy dox moo yàq dëkk bi. dafa ñun nañ koy ressentir suñu activité ku nekk ñu bëri xam naa leen loolu sax si sanc sëy na la bokk parce que ñu nekk dañuy toog suñu coin di yuuxu di màttu mais suñu dajaloo joxe ay idée dinañ xam ni ah tapalekat yaa ngi nii liggéeykat yaa ngi nii te loolu dafa commencé important ñu koy commencé wane ci dëkk bi di ko wax ni nga xamante ni tamit ñu ngi liggéey nekk ay champion ñu assumer parce que environnement des affaires au Sénégal aujourd'hui c'est très concurrentiel fekk ay année ku fi liggéey di taaba taaba wala mënoo li ngay def dafa ko ci professionnalisme dafa ko ci sérieux dafa ko pour les consommateurs c'est-à-dire le service clientèle gars yi nit ñi kontaan nañ doo yàgg parce que la concurrence va venir récupérer ce marché. concurrence moo tax vraiment l'environnement des affaires c'est très compliqué voilà environnement en nous-mêmes Mm-hmm. avant ñu réclamer quoi que ce soit comme yenn saa yi comme li ñuy wax waaw pourquoi entreprise étrangère bi di ñëw. Mm-hmm. mais avant entreprise étrangère bi di ñëw ñun nañu sérieux ba pare bis bu ñu paree être professionnel ay ci qualité entreprise étrangère du nekk menace au contraire day nekk partenaire. day ñëw ne ah j'ai trouvé une entreprise sénégalaise ba xamante il est assez sérieux damay ñëw plugué ci moom. Mm-hmm. ma déroulé sama marché. loolu c'est ça l'idée c'est ça c'est ça c'est réalisateur mi ngi naan vraiment temps bi ñu impartiroon euh, mi a jeex mais je pense que on va poser la dernière question parce que vraiment bëgg nañu jeunesse bi vraiment gis seen bopp ci li nga xam ne moom mooy moom mooy le nouveau le nouveau gouvernement mm-hmm. tey ji gis nañu les failles de l'auto-emploi tey ji bu ñu doon jël entre auto-emploi c'est-à-dire emploi yi auto-emploi directement mm-hmm. vraiment pousse les PME tey ji ban lañ ci doon ban lañ ci choisir il faut les deux lu tax ma wax ko. Euh, auto emploi c'est très auto emploi États-Unis auto emploi ñoom ñooy livré pizza yi ñoom ñooy livré lépp tey Sénégal càq-càq yi comme ni ñuy wax càq-càq yi wala il faut ñu mémoriser seen impact économique dans ce pays vitesse de commerce bi am vitesse de transfert d'information yi am grâce à càq yi performance productivité bi ñu am Sénégal tey grâce à càq yi il faut ñu mesurer ko mm-hmm. mais dafay am deux périodes c'est-à-dire càq-càq yi seen liggéey dafa mu nekk des liggéey de transition mm-hmm. Mm-hmm. nga xam ne dañuy avancer dem vers les PME mais PME yi fa ñu yokk seen doole ñu grandir nga xamante ni ñi def càq-càq dinañ jóge si càq-càq bi ñoo dugg ci usine mais les deux vont de pair mais l'emploi des càq-càq dafa doon nekk emploi par exemple emploi de l'auto-emploi doit être des des emplois de transition vers dugg soit nga nekk chef d'entreprise à temps plein soo nga dem dugg ci benn usine wala une entreprise qui va t'embaucher à temps plein merci beaucoup loolu mooy un peu l'idée merci Bachir. Je pense que les on a fait le tour. Donc on était avec euh, Bachir euh, Nia le président de du CNE conseil national de l'entrepreneuriat tey moom la ñu dalaloon ci émission bi waxtaan ak moom ci thème boo xam ne vraiment ça tient tout le monde à cœur la jeunesse sénégalaise mais aussi l'auto-emploi mais aussi l'entrepreneuriat parce que fi ñu jëm nii je pense qu'il faudra ñu miser vraiment sur l'entrepreneuriat parce que on a une population très jeune je pense que l'emploi et l'insertion ça va être très très compliqué Exactement. nous vous remercions vivement monsieur Bachir donc nous remercions aussi nos téléspectateurs et l'équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndal ci réalisation bi Issa Pouy moo nekk sama kanam Amadou Ndakebe moo nekk sama ginnaaw Khady Sarr moo nekk ci montage bi vous la semaine prochaine ci beneen numéro merci beaucoup merci